waxtaan nañu léegi ak kilifa gi muy la préfet de Rufisque et ñu koy sant di ko gërëm si gaawaay bi parce que mënoon na toog di seetaan ba jéeye ñëw ñu doon ñu arrêté mais donc dafa ñu woo ñu waxtaan et ñu redefinir ay dispositions dispositions yi nag du dara lu dul sécurité ak sensibilisation et que match yi am si jàmm jeex si jàmm. mesures yi ñu jël nag bii jiitu mooy service d'ordre bi dañ koy yokk buñ ko yokkee pour mu mën a nit ñi si biir stade bi mais duñ yem foofu parce que équipe yi aussi bu ñuy ñëw il faut que sécurité bi accompagne leen beneen bi ay yi mën nañ xaw a dende wala ñu bokk yoon bu ñuy jaar foofu aussi mesure bi ñuy jël mooy dinañ réunion ak ñoom réunion ak zone yi def de sorte que ay ASC du ñu bokk yoon bu ñuy jël bu ñuy ñëw stade ak bu ñuy dugg stade beneen bi dinañ def ay sensibilisation ci quartier yi impliqué ci euh, euh, notables yi mooy les délégués de quartier les présidents de conseil de quartier beneen bi ëpp solo pour man mooy stade Ngalandou ñaari tribune la am couverte ak découverte boo xoolee match yi ñu organisé ñu am si jàmm dañ séparer les ASC complètement de tribune bii nag dafa am couvert bii amul couvert naaj la ak bu amul naaj donc yooyu yëpp jàmm amul prix dinañ waxtaan ak acteurs yëpp même bu ñuy def tirage au sort ku ne jël tribune ñu xam ne loolu mooy li gën loolu mooy li indil ñëpp jàmm beneen bi mooy dañ jàpp ne stade bi aussi match bu jeexee ñëppay génnandoo et que loolu aussi bu ñu dajee si biti day indi coow léegi dañuy décider waxtaan ak ñoom ñu xool kan mooy jëkk a ñu évacuer ko bu pare keneen ki génne mais yooyu yëpp bu ñu toogee ñoo waxtaan si lañ koy définir beneen bi nga xamante ne aussi waxtaan nañ ko fii mooy waa yéen waa sangal Sangalkam ak euh, waa waa yéen waa Diamniadio ak waa Sébikotane ñoom sécurité lañ amul parce que gendarmerie dafa nekk si yeneen priorité mais tey waxtaan nañoo ak euh, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rufisque préfet wax nag moom moom aussi nee na dina ma recevoir dans la semaine ñu jéem a xool nan la ñuy def pour mu mën a accompagner zone yooyu ñu mën a gérer seen dëkk li am solo daal mooy ñun jàppa nañ ne match yi dañ ko war a organiser dañ ko war a tenir mais nag day fekk muy match boo xam ne ñun am nañ information boo xam ne euh, war nañu ne bu ñu jëlee sécurité bi ñu war a jël jël disposition yi ñu war a jël dina am si jàmm mais am na yoo xam ne aussi quel que soit yow li ngay déployer ASC yi nit ñu jegee ak histoire ak vécu bi nga xam si ñoom mën na am coow moo tax aussi bu ñu tolloo foofu ODCAV du hésiter pour ne final boobu du am wala dañ koy délocaliser yóbbu ko bi parce que aussi dañ ne dans une période cruciale mooy que bientôt ñu dugg mois de décembre dëkk bi ñëpp xam nañ ne à un moment donné, de basculer vers la préparation des élections. Nous aussi, on est des citoyens. On doit avoir une posture républicaine. Nous devons war a et puis jot pour mu puis de war a jeex aussi si nous ñu pas page boobu dem si donc dans l'eau où fi génn woon di le préfet di santé les présidents de zone di santé les maires tous les participants ak la presse di ñaan yàlla lii des si nawetaan yi à Rufisque ñu def ko si jàmm mu nous jàmm ku ne am jàmm Merci.